ñaajo journal bi di Rewmi Quotidien nee na teerem Dakar bi lu toll ci deux cent mètres carrés bu dee nag jam ñaajo lu toll ci cinq cent mètres carrés yéen kaay gi di enquête xibara naan ñu Macky nag kañ na ñi nga xam ne ñooy gaynde yi niki démb daan na leen di jaajëfal bu baax a baax wax leen na leen yéen ay royukaay ngeen journal bi di Dakar Times nee na Sénégal neexul ba neexul waaye nag teral nañ ñi nga xam ne ñooy sunu équipe nationale bi journal bi di L'As nee na njiit réew ak nag terrain yi nga xam ne jox na ko gaynde yi ca jam ñaajo dafa taxawal li nga xam ne mooy ab cité de la tanière yéen kaay gi de la Quotidien di ko dëggal Kalidou Koulibaly moom tim daan nay jaajëfal bu baax a baax askanu Sénégal ci tertu bi nga ne moom lañ leen terto maître Augustin Senghor nee na jamono ji ci lu kenn du weddi wala kenn di ko laam-laamee Aliou Cissé mooy entraîneur bi gën a xarañ ci Afrique yéen a gi di Sud Quotidien di Source A nee ma ngi mel ni Père bi di enquête ñu xëy fekk fa asret asret mooy kuréel gi nga ne ñooy ñaxtul ñi nekk xam ne yi jamono jii bég nañu ko war naa feeñ ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso yi ba tax waa asret ñoom nag ñuy sàkku ci njiitu réew mi di président Macky Sall ab grâce présidentielle spéciale Macky Sall lu toll ci junni junni sénégalais yu nekk ci kaso bi loole la waa asret di sàkku ndax nee na keroog bi nga xam ne sénégal dem na final mboolem kaso yu nekk ci sénégal fa nekk ñëpp ko doon seetaana te bi sénégal gagné ñoom ñëpp békk moo tax ñoom waa ñoo ngi sàkku ci njiitu réew mi ab grâce présidentielle spéciale lu toll ci mille détenus yéen a kaay gi di réew mi ko di ñu koy fekk fekk fa Mohamed Salah capitaine bu Égypte bi daat nay wax ne Sénégal bay boo mu waajal boppam ndax nag éliminatoire mondial yi danañu jël suñu revanche yéene kaay gi di Sud ñu koy fekk fa Cheikh Seck ancien gardien bu Sénégal vice président bu fédération sénégalaise bu football daat nay wax ne ginnaaw feet bi nag bay boo ñu concentré baax a baax ci li nga xam ne mooy éliminatoire mondial journal bii di Stades xëy di ñu xibaar naan ñu Sadio Mané niki suba ci alxames ji ko xaar fi nga xam ne mooy Liverpool yéene kaay gi di Rewmi Quotidien xëy di ñu xibaar naan bees bi sa jam jam ñaajo ñaar fukki fan ñaar la ci weeru février cinquante mille places la yéen a kaay gi nee na Abdoulaye Wade mooy invité d'honneur ba journal bi de la Soleil xëy dañu xibaar naan ñu commerçant yi ñi yëngatu ci lu jëm ci wàllum njënd meeg njaay te nekk ca Sandaga jamono ji ñoom bëgguñu xew yi jeex ndax ñi nga xam ne ñoo nekk Sandaga di jaay ay sifflet ak drapeau Sénégal ak maillot Sénégal ak lépp lu xeetoog réew mi jamono ji maanaam seen bamba maase na yéen a kaay gi de l'Observateur xëy nga xam ne ñoom lañ Africa passeport diplomatique ni ki démb ñoom ñëpp la ñu mbogo mbogo di dajale maanaam di leen laaj ñuy tontu confrontation kay gii di ñu koy fekk fa alelo mi nga xam ne moo nekkoon maire bu Taïba Ndiaye candidat Benno Bokk Yaakaar te ko ci élection yi ba léegi ma ngi résultat yi yéen kay gii de la tribune nee na bi nga xam ne moom la ñuy tax na ministre yi ak directeur généraux yi ñoo ngi wër ay sëriñ wër ay sëriñ ngir a